am na loo xam ne itam ci wàllu néew kattan parce que néew kattan dafa bëri ay façon parce que am na yoo xam ne dañuy néew kattan li di wax stress dina ko dee doomu aadama maanaam loolu day def euh, néew kattan dégg am na jàngoro yoo xam ne dañuy nekk ci yow itam dina def néew kattan lekk bu bon ba ñàkk kii lekk bu baax dina def néew kattan am na néew katan boo xam ne itam moom mën naa ne dañu koy juddoo mbaa def la dab loolu yëpp yàlla def na ma ci euh, am naa ci daal na yoo xam ne bu ma ko defee boo kenn kattan dong nga neex am na yoo xam ne bu la ko defee di nga yëg sa kattan. asalaamaaleykum ku baax ziar nañ bu baax a baax ngi ziar bu baax maa ngi tudd Mouhamed Souran dëkk Kébémer euh, maa ngi siiwur sa analyse toujours ci ci ci YouTube bi. Euh, maa ngi dégg affaire bu baax te macha allah yëpp jaar na yoon euh, ñu lay ñaanal bu baax rek affaire bu gën a continuer gën a avancer aussi euh, ci kaw ci kanam. man au fait li ma gis ci Lalla mooy Sénégal dama gis ni li ma ci jàngat mooy nit ki saa bu amee alal góor ñi quoi buñ amee alal du ñu takk ñaari jabar mais buñ amul alal dañuy takk benn ba ñeent te ma gis ni. pour man ñi ëpp ñi am alal ñoo war a maanaam dimbali société dimbali jigéen parce que comme jigéen ñi moom bëri nañ fi dañoo war a takk benn ñaar ba ñett sax moins mais dama gis ni jigéen ñoom mu seen jëkkër amee alal rek ñoom dañuy def la tout pour que seen jëkkër yem ci ñoom kese bu fekkee amul nag bëgg bu leen neexee xam nga takk takk takk takk ba seen xol sedd te loolu pour man baaxul société fi mu toll nii et que góor ñi aussi tamit boo gisee ñi nga xam ne am nañ alal yu ci bëri. Euh, mën na yem seen benn jabar mais après dañuy nekkaat ci àll bi def lu leen neex dañuy dem ba sax am doom yoo xam ne dañ koy nëbb seen giir dund te kenn du ko xam te loolu man pour man jëmale woon bi jëmale woon euh, diine ji kanam et puis jën jëmale woon jigéen ñi kanam aussi tamit parce que jigéen ñëpp tamit fi mu toll nii man damay wax tamit benn jigéen mu ne ma wax mu ne ma xamal ma ne ma seq koo xam ne dafa yar jabar moo gën a sérieux nga seq koo xam ne ay célibataire la parce que kii yor jabar du lay waxal dara euh, lépp da koy téye ci suuf et puis ñoom ñoo gën a neex ak du la dul la stress bu dee célibataire bi moom mooy loolu dañ lay sonal xam nga fu ñu tollee lijjante gi demee noonu quoi pour pour man nag Sénégal war nañ toll foo xam ne góor ñi ñi nga xam ne am nañ alal war góor góorlu maanaam bu jéem a am xam nga créer yeneen famille ci yeneen jigéen quoi mais ñu def ko ci anam bu légal quoi jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu maa ngi lay ziare di leen dox sa wàcce baax la Lu Xew TV ñu ngi lay ziare biir ba am jàmm baax sànq de seen vidéo bi seetal naa ko waaye vidéo bi lu am solo la lu am solo vidéo bi de moom li ma ci jàngatee mooy góor ñi góor ñi nga xam ni am nañ droit takk euh, ñeenti jabar kon bu ñu demee bay takk soxna juróomi jabar laqatu day dem feneen fa takk soxna pas ko li ma ci gën a métti mooy Lalla ni mu ko waajalee Cheikh toggal ko togg yu neex ah def ba mu baax lépp toog togg togg bëggu ñu ñaar bu ñëwee ñu ànd guddi gi xàppi waaw xoolal gis nga la xoolal xoolal xoolal xoolal di ko indi di ko di di ko Cheikh andil ñu ko dama takk ñaareel loolu métti na trop métti na trop loolu marqué na ma trop waa ci biir marqué na ma trop wallaahi marqué na ma trop wallaahi moo tax góor ñi daal képp xam daal ñi nga xam ne am nañ droit takk ñeenti jabar ah, kon bu ñëwee bay takk soxna juróñuy làqatu juróñuy làqatu ndax Cheikh moom li mu suy fi ñaaw trop li mu ok sëñ bi <laughs> comme ni nga ko waxee daal laala comme Cheikh nu mu takkee ni maîtresse waxu ko loolu moom mun na kaa indil problème ci pro ci waaw parce que jëkkër ji daal nu mu def nii waruloon def noonu moom dem na doxaan ji te encore dem def mariage te waxul lala mu ñëw encore lala naan ko foo jëlee yére yi parce que ya nga doon bi nga doon gën fii du yére nga soloon après mu naan ko takk naa ko léegi takk naa ko loolu rek am na ñeneen jabar daal dañuy bëgg seen jëkkër ba ñu xam lu ñuy def léegi si takk naa ko boobu mun na ko indi problème bopp te mun na tiit daal ak lalla nu doon waxee noonu kii xawma mu ne mareem nee na na dem wuy siko ko den kaa liggéey den kaa liggéey te nag ku ko liggéey loonu na dem dindi lu mu def mais encore mun na am ndax mun na am lalla dafa mer mu dugg ci biir néeg mu def ni boppam pour maanaam fekk Cheikh day fàtte Marème loolu yëpp mun na am daal mun na am moo mun na am lool moo tax ba muy def nii mais daal nu mu koy tourné daal neex na trop parce que man heure heure bu ñu génnee épisode bi rek man dema koy seetaan mhm. ok merci. salaamaaleykum grand frère ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi lay nuyu di la bëgg en plus waa man maa ngi woote France maa ngi tudd Ibrahima. wala sant Sidibé Sayoxule la vraiment mais actuellement France laa nekk nii quoi waaye maa ngi si biir Lyon euh, ñun nag vraiment votre série bi moom depuis bu mu commencé woon ba léegi man amul benn épisode alors bu mu correcté woon vraiment vraiment amul benn épisode alors wala raté naa ko daal maa ngi koy seetaan vraiment vraiment an nom nom maria xaw ma vraiment vraiment série boo xam ne macha allah série bi moom dafa neex quoi am bis yeete nday ñi yeete na nit ñi macha allah man de moom euh, vraiment vraiment c'est incroyable mais vrai waaw maa ngi koy seetaan nag neexoon na lool et deuxième question nag pour question kii bi la quoi lalla euh, vraiment vraiment si comme ni nga ko waxee woon mun na ko defuloo quoi mun na ko defuloo parce que ça dépend sa jëkkër nu muy nu nu mu la koy waxee tu vois parce que voilà euh, jëkkëram bi daal ñëw rek alors voilà wax ko noonu taq naa ko xam nga voilà affaire bi moom voilà au début alors moom bu muy génn euh, da euh, fàtt nañu ay affaire yu tàq bi déjà et moom jékki-jékki dem rek alors voilà dara fekku si alors sa jëkkër tàq na wujju sa jëkkër tàq na la wujju quoi fait xam nga loolu dafa métti déjà alors mun na mun na dof mun na la dofloo parce que la la déjà gis na jël na paak bi après voilà xam na xalaat nee na xaar mu bàyyi paak bi budul loolu alors voilà budul loolu moom addunam day yàqu parce que déjà day dem prison et voilà Noura aussi alors voilà. Euh, day nekk xale boo xam ne alors voilà day jaaxle quoi tu vois non mais vraiment dans ce cas alors voilà pour man ma sama xalaat bu gàtt lal lu mun na dofloo quoi man sama xalaat bu gàtt laal lu mun na dofloo quoi keneen ki nag mooy rakk yi ak euh, ku góor ki waaye vraiment euh, gaañ bi moom tamit def na def na lu mu waroon def quoi. def na lu mu waroon def vraiment vraiment gis nga léegi yàlla wala rek yàlla xam na free léegi quoi xam na xam na am na chat léegi vraiment vraiment tu waa loolu moo tax bon ñun de moom suñu olof yi voilà comme daal mooy loolu ñu ngi ñu ngi jéem rek mais bon nuyu naa leen yéen waay yëpp alors vraiment vraiment kontaan nañu lool mais seen série moom neexoon na vraiment macha allah bëggee waaw salaamaaleykum salaamaaleykum waaw moom maay wax waaw man maa ful parce que dama leen suivre trop quoi seen théâtre macha allah neex na trop nga doxalee neex na quoi mais affaire u Lalla moom affaire bi méttiwul Lalla ci jongeem la nekk rek ba tey ci jongeem la nekk dafa jonge rek jonge bi daal lay jéem a forcé parce que loolu commencement ba fin loolu lay gëmloo boppam loolu lay gëmloo nit ñi tamit ajjana patati patata sama cheikh bi taxul kenn cheikh nangam nangam patati a affaire bi da ko bett quoi parce que fonk ko woon parce que pour moom napp bon pour moom xam maanaam yóbbu na Cheikh foo xamante ni bon góor du fa yóbbu jigéen du fa yóbbu góor man je mais Cheikh aussi la am te góor la quoi ça veut dire que Cheikh dafa war a nii góor bu bëggee dara di ko tëdd maanaam toujours muy kilifa jigéen quoi te laal loolu waroon na ko sori parce que moom moo signé moom moo signé polygamie moom moo signé polygamie jib bi muy signé polygamie foofu la mbéccal amatul quoi fi mbéccal di amee kay mooy fi mu mais moom moo signé polygamie comme quoi que Cheikh am na droit takk takk keneen quoi. xamala kan loolu méttiwul quoi franchement méttiwul mais la moom ci jongeem la nekk te xam maa ne Cheikh aussi tamit xaatu leen benn yoon Cheikh demaate pam bi foofu ñëw na ko na ko fase kuñ ko defoon sa rakk wala ñu def ko sa wala moom moom Lalla moomu sax buñ ko defoon sœuram wala rakkam du ko neex xamala pare par ta takk woo sa moom ñëpp ñëw sa jabar tax nangam nangam la doful dina jàpp ko daara jëf maanaam jongeem lay forcé rek parce que dafa am ni muy déglu dafa am lu muy gëmloo nit ñi tamit bëgg ko wan nit ñi tamit dafa joxe rek bu leen yàq seen théâtre teg leen ko ci yoon Cheikh am na droit tàkk ba quatre femmes loolu lu ñu lislaam sant xam nga bu defee na ko ay mbokkam faj daful dina jàpp ko bés bu bés bu Cheikh tekkee loolu rek li maanaam li mu doon mën a da koy def dof nag du wéree noonu dof moom boo xasee def doo wéree noonu quoi waaw bu ñu jéem a nax quoi joué leen seen théâtre affaire bi neex na ba pare teg leen ko ci yoon quoi am ngeen ay xaat kam ñun parce que li ngeen joué ba egsi fii seen xaat moo lañ ko may forcé wuñ leen dara mais man sama xaar aussi laa lay wax parce que yéen ñu laaj suñu xalaat mooy c'est bien beau ci naaj sax quoi nuñu yàlla defal jàmm kontaan nañu alhamdulilah. ngi ne bàyyi na ci jàmm bu baax sànq dama doon xool YouTube fi série maîtresse ñu def ci benn kii pour daal ku ne wax sa xalaat waaw man sama xalaat moom lenn la mooy laal la. soit dafa am ay rab wala li muy def mu tay ko man xalaat ay rab la li mu def mu tay ko tayit sax moo ko tay ndax yaakaar naa ne bu fekkee li mu wax tayu ko laal la du wax ay affaire da ko dañoo sëriñ laak affaire yooyu loolu du ko wax mënoon na ko xente bu fekkee ay affaire dof la mënoon na ko xentee ci leneen mais comme ni ko koy wax ni da koo sëriñtu fase ko yooyu moom moo ko tay nag moo ko tey te ku góor ki am na droit takk deuxième fois fii góor ñu bari dañuy takk jabar duñ ko wax seeni seeni aaw loolu dara new ci laala kay dafa naagu woon rek yaakaar ne jëkkëram du takk deuxième fois te seexit loolu la ko gëmloo woon fee lool la waa asalaamaaleykum bëgg leen bu baax euh, ziar leen waa sama xalaat si série bi mooy comme ça ginnaaw bi ma leen nuyoo ziar leen bu baax di leen bége bu wér a wér di leen masawu seen coono si li ngeen di def ndax am na solo lool waaw sama xalaat nag mooy comment que Cheikh Diagne comme ça takk gi comme ni nga ko annoncé mm, laal la mën naa ni moo waral sax li am di am mais tamit euh, ñun góor ñi nga xam ni ñun ñooy yor soxna yi ñooy seen kilifa ñu bàyyi loo nga xamante ni dañuy koy wax di ko jëfee tamit xam ni ëllëg da ci mat di soor ndax jigéen su fekkee yow yaa ko takk ci kër gi gëmloo ko ni yow doo am baneen jabar ba mu def si boppam ni moom doo am keneen koo xam dina fekk si kon bu demee ba gis ngay fekk ndax lalla boo gisee si série bi ni mu doxee rek nga xam ni kii moom musta gëm ni Cheikh Diagne dina takk beneen soxna pour andi ko ci kër gi lalla moom musa gëm loolu kon bu demee ba loolu am te Cheikh Diagne tamit gëm loolu ko nii moom dootul takk dul takk beneen soxna waaw si eh, sama xalaat waaw mais comme ça nii laala def muy bi mu jégee ni Cheikh Diagne takk na euh, mën naa ni ah loolu moom mën na ko bañ a ndee euh, noonu mën na ko bañ a demee noonu ndax euh, yi moom dañoo jonge waaw jonge ju forox la ñu yor waaw ñoom moom mane nañ bu nekk waaw mais daal moom yaakaaruma ni daal war na si ma ne jële daf daal waaw moom moom rôle moom ni koy joué si film bi tamit ma neex na ma lool neex na ma lool waaw maa ngi boo gisee sama vocal nag moom maa ngi leen di bëgge te di leen kontaane bu baax a baax a baax di leen wax euh, yàlla na suñ borom def ngeen jëm ca kanama kanama kanama kanam ndax li ngeen di siyee am na solo lool waaw ah, lépp lu si jub nag ngeen xam ni euh, si yàlla lépp lu ci manqué ngeen xam ni matatik doomu aadama la nga xam naa ni jublu woon naa si mu jub lool wax dëgg yàlla maa ngi bëgge ñëpp rek te di leen mm, sifur bu baax a baax a baax jaa ngeen salaamaaleykum wa rahmatullah marhaban ñu ngi leen ni di leen ziyaara yéen ñëpp di leen wax ne waaw yéen a ngi def lu am solo lu Sénégal njaay yëpp rafetlu rawatina ñun waa région de Kaolack bi di wax ne ci thème bi nga wax nag am na solo lool waaye man li ma gis mooy su fekkente ni ndaw siñ takk ak ki nga xamante ni moo nekkoon soxna su njëkk si moom su fekkee moom dafa dof carrément bu tax seex bàyyi kii mu takkaat nañ jéem a xool nu def bañ delloo siaat xelam mu jéem kee nekk u jëm waaye ba tey su fekkente ni moom moo nekk ci affaire yi sagoom rek di dof dof la yooyu dañ koy bàyyi xam ne ci dof-dof la nekk saa yi demee ba nga xamante ni retourné na rek ki daf daf la moom yàgg yàgg boo xamee ne mën a sotti il faut nga retourné su fekkee moom ko tey it mu retourné moom waaye su fekkente ne tey ko seex bu mu ko bàyyi mais bu tax mu bàyyi it mu takk ndax kee mu takk man ni ma seetaanee théâtre bi bëgg na ko lool te bu ko bàyyee dana am neneen nu demee kon daal man li sama xalaat mooy bu ko bàyyi nekk nag lu ci xalaat rek ñu xool. Mouhamed Niang la dëkk région de Kaolack